أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا لقن لساني واحللا منه العقد واجعله شاكرا وذاكرا أبد mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal comme ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen rek ci ay bis bu ne di xamlente ak yéen ci lenn ci li nga xam ne moo aju ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bii mu tudde nahju qadaa'il xaaj ci bind yi nga xam ne moom lañ daan ànd ak yéen rek ci lañ fas yéene wéy ba tey incha allah continuer rek ngir bëgg a sof fi nga xam ne fi lañu yemoon ci suñu bind bi weesu te it sëriñ bi doon ci laabiire ci teggin yi nga xam ne mooy teggini nuyoo ak yi nga xam ne moo ci aju yépp ñu taxawoon fi mu doon wax ne li nga xam ne mooy saafuwante day ci ñaari loxo maanaam nit ñi joxante ñaari loxo di saafuwante bu dee ñaari góor ñu joxante ku ne jox sa moroom loxo ñu saafuwante ku ne dëgëral sa loxo ci sa moroom ñu jàmmasante ñaanalante jàmm ñaanalante aw yiw loolu dafa bokk ci ay teggiin waaye nag li nga xam ne moom mooy këfante loxo moom mel ni luy tàppante dem loolu moom sëriñ bi nee na bokkut ci teggini nuyoo tey lu nu sib la kon nit ki war na koy moytandiku bu baax a baax a baax ndax dafa dàqonte ak ay teggin ñu di nuyoonte di këfante ay loxo wala ngay tàppante di dem loolu bokkut ci ay teggin kon sëriñ bi nee na saa boo demee ba war a saafoonte ak nit di nuyoonte ak moom di joxante ay loxo na nga fexey ba ngeen jàppante bu dëgër ba ku ne xam ne jàpp nga sa moroom bu baax ngeen jàmm sante dooga tàqali ko foofu lañ yemoon mu doon wax ne summal musaafaxatu bil yadayni topp saafuwante ci ñaari loxo min jumlatil aadaabi bokk na ci teggiin yi misla zeyni comme ñaar yi nga xam ne moom la wax léegi ne kon saafuwante ci ñaari loxo bokk na ci teggi ni nga xam ne nit ki war na koo sàmmonte su fekkee ne dem na bay nuyoo di saafuwante waaye nag bu ko neexee mën naa bañ a nuyoo ci saafuwante waaye mën naa nuyoo ci nuyoo bi nga xam ne mooy nuyub lislaam muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu loola it bu ko defee lu baax la ndax nuyoo bu baax la te it nuyoo la bu fees dell ak jàmm ak yiw waaye nuyoo la bu fees dell bu ak i ñaan yoo xam ne jullit bi saa bu ko jokkalante ak moroomam jullitam ñaanalante neen jàmm waaye ñaanalante neen yërmande yàlla ñaanalante neen barke mu wàcc ci seen kaw ñoom ñëpp moo tax sëriñ bi ne su fekkee ne nag da ngeen a saafuwante wàddoxu na nga ñaan loxoo ñeel ko anka bi xayrin ci aw yiw yaa labiib yow aji xellu ji fa innahu naka moom ñaanal ko aw yiw boo yoojee ngay def mimma bokk na ca la nga xam ne yu kaffiru dana kafaara azunub ay bàkkaar sëriñ bi nee na saa boo saafuwante ak nit ngeen di nuyonte na nga ko ñaanal aw yiw na nga ko ñaanal lu baax na nga ko ñaanal lépp loo xam ne moo koy jariñ na nga ko ko ñaanal ngir ne ñaan googu nga koy ñaanal day dellu si ci yow te mën na laa kafaara li nga xam ne mooy ay bàkkaar mën naa tax bàkkaar yoo amee woon suñu borom bi jéggal la ko kon loolu lu ama am solo la lu nit ki di war a bàyyi xel bu baax a baax soo nuyoonte ak nit bañ a yàkkamti waaye ngeen nuyoonte jàmm sante ku ne ñaanal sa moroom jàmm su ko defee looleem day doon aw yiw wàcc ci seen kaw yéen ñaar ñépp mu ne nag wa in turit soo bëggee walla nga nam du xuula baytil xayri dugg néegub jàmbur am dugg néegub keneen fastazin na nga yëglu ahlahu ñeel ñoñam tafus kon da nga tuuf bi xayrin ci aw yiw sëriñ bi radiyallahu anhu nee na saa boo xamee ne namm nga tab bi néegub jàmbur nee na bu boobaa na nga yëglu nee na na nga yëglu ña nga xam ne ñooy waa néeg booba nee na loolu de soo ko defee ci ngay tuufoo ci ngay amee ci aw yiw léegi nag boo yëgloo nan ngay def mu ne fa in hum su fekkee ne ñoom xat azinu jox nañ digal fii zaaka ca loolee ngay sàkk muy dugg ca biir néeg ba fadxul na nga dugg wa illaa su fekkee ne nag joxewuñ ca ndigal farjaan na ne na na nga dellu hunaaka foofee ne na su fekkee ne danga bëgg a dugg ci néegub jàmbur day na nga fexey ba yëglu ña nga xam ne ñoo moom néeg ba na nga yëglu maanaam na nga fittasiku wala nga def luy wone ne da nga bëgg a tàbbi ci biir néeg bi soo ko defee ñoom ña nekk ca biir suñ la joxee ndigalul nga dugg nga dugg nee na ci loolu ci ngay amee tuyaaba ci nga am ci ngay amee aw yiw te it moom moo dëppoo ak ay teggiin waaye nag su fekkee ne ñoom dañ laa aaye nga dugg nee na bu boobaa na nga dëpp bañ a bañ a dugg ndax xamoo ci lan lañ nekk ba tax may ñu la ndigalul nga dugg kon buñ la dugga buñ la digalee ne la duggal nga dugg waaye suñ la joxul ndigalul nga dugg nga dellu fa nga xam ne foom foofu nga jugeen ndax loolu alquran mi ngi ñu koy dénk baada aouzu billahi min ashaitan rajim suñu boroom mi ngi wax ci alquran ne yaa ayuha alladina aamanu laa tadxulu buyutan xayra buyutikum xatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha zalikum xayrun lakum laallakum tazakkarun yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla bu leen dugg néegub jàmbur mukk lu dut ne da ngeen a yëglu maanaam bu leen dugg néeg bu ngeen moomul mukk lu dut ne da ngeen a yëglu boroom néeg ba ba mu jox leen digal ci ngeen dugg su leen joxee ndigal ci ngeen dugg ba ngeen dugg nee na na ngeen nuyu waa kër googe ndax loole mooy lu baax mooy li nga xam ne moo dëppoo ak ay teggiin mooy li nga xam ne moo dëppoo aku ngëm yàlla goo xam ne moom la ab jullit war di sàmm kon loolu mbir la moo xam ne day tikki aaya boobu nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala wax sëriñ bi nag ne walaatu jël suñ la mayee ba nga dugg ca biir néeg ba walaatu jël bul wëndeel albasara sab xool wala sab gis say bët fii bayti xayrika ci néegub keneen maanaam néegub jàmbur bu ci dugg di ca wëndeel sa ay bët xaw fattilaa ngir ragal yuqamtiku awratin awra joo xam ne satara nëbbu na fii ca biir néeg boobee sëriñ bi ne na saa boo sàkkoo nag dugg ci néegub jàmbur ba ñu jox la ndigalul nga dugg nee na bu boobaa na nga sàmmoonteeg teggiin ya nga xam ne moom la néeg ba laaj mooy sa bët yi bul ko yónni fu ne ngay xool ci biir néeg bi li nga xam ne moo fa nekk ngir ne ki nga xam ne moom moom néeg bi mën na cee nëbb ci barab loo xam ne bëggut kenn ku ko gis te bu fekkee ne yaa ngi yuqamtiku ak a wëndeel say bët ci biir néeg bi bu boobaa loolu mën naa tax nga gis awra joo xam ne dañ koo nëbboon te bañ ko koy bañ ko ko gis kon nit ki war nay sàmmoonte bu baax bu duggee ci néegub jàmbur mu fexe ba gàttal ab gisam waaye fexe bay damm ab gisam waaye fexe bay yemale ay bëtam ci li nga xam ne moo ko tax a jug rek mu dox ko bu yitte yamatee mu daal di dellu waaye bokk ci ay teggin nga dugg ci néegub jàmbur toog fu ne nga yónni fa say bët fu ne nga wëndeel fa say bët lu ne nga xool ko loolu dafa dàqonte ak ay teggiin ngir li ci nekk ci ayub mën ngaa gis loo xam ne borom néeg bi bëggul woon ku ko gis te bu boobaa loolee day dàqonte ak ay teggiin moo tax loolu ba tey alquran mi ngi ciy wax ne mi ngi wax yonente bi ne ko waxal jullit ñi ne leen nañuy damm seenu gis jullit ñu góor ñi dañuy sàmm li nga xam ne mooy seen pey di ko wattu waaye it na nga wax jullit ñu jigéen ñi ñoom it ñuy damm seeni gis waaye di sàmm li nga xam ne mooy seen seen pey mu ne xul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa yaxfadu furujahum zalika azka lahum inna allaha xabirum bima yasnaun wa xul lil muminaati yaxdudna min absaarihinna wa yaxfazna furujahunna kon alquran foofu mi ngi ñu fi wax li nga xam ne mooy teggiin yi nga xam ne nit ki war na koo sàmmoo ci ab gisam lépp loo xam ne awra la wala lépp loo xam ne dañuy bañ nit ki gis ko mu fexey di sàmmoonteeg ay teggiin yi nga xam ne moo dox ci digganteem ak ay bëtam ba bañ cee xool loo xam ne awra ju nëbbu la ju ñuy bañ nit ki gis ko ci lu mu mën a doon moo tax mu ne yaan yi li mu jublu ci li mu doon wax an na minal adami naka bokk na ci ay teggiin an la tamshiya nga bañ a dox illa li xaajatin lu dut aajo maanaam nga bañ a jug rek di dox di dem te amoo jenn aajo ju la tax di dem nee na loolu dafa dàqoonteeg ay li nga xam ne mooy ay teggiin kon nit ki saa bu demee ba bëgg a jug di dox di dem fenn na ko aaja tax a jug bu demee bu fajoo aaja joojee daal di dellu fa nga xam ne fa la jóge woon moo tax mu ne fa inna min alxamaqati naka bokk na ci ak dof bokk na ci ak manki an tadxaka nga ree min xeyri ajabin ci lu du lu yéeme maanaam gisoo lenn lu yéeme lu la tax a war a ree nga tëb rek di ree ne na loolu ku dese rek moom moo koy def wa an tamsiya ak ngay dox min xeyri arabin ci lu dul jenn aajo kon nee na dox ci lu dul aajo wala ngay ree ci lu dul lu yéeme gisoo lenn lu yéeme lu la tax di ree nga tëb rek di ree di xàqataay loolu lépp sëriñ bi nee na dafa bokk ci ak matadi dafa bokk ci ak manki te it dafa dàqoonteeg ay teggi nit ki war na koy moytandiku bu baax a baax a baax a baax wa an taltafita ak ngay gestu min xeyri xaajatin ci lu dul aajo nee na bokk na ci ñàkk ay teggiin bokk na ci li nga xam ne dàqonte nag ay teggiin ba tey tamit ngay dox foo romb di gestu foo romb di gestu te li ngay gestu jenn aaju taxul nga koy def loolu tamit bokkut ci ay teggiin wa minha bokk na ci li nga xam ne nit ki war na koo sàmmonte te mu bokk ci ay teggiin an tax tarisa muy wattu min an takshifa ci muy wuññi an sarawiilika ci say yére maanaam say sa tubay fa inna zalika naka loolu min siyami fussaaqi xasaana dafa bokk ci jikkooy gàdd ga tudd xasaan wa an la takshifa ak ngay bañ a wul wuññi an batnika ci sa biir aw shay'in wala dara mimma ca la nga xam ne bayna surratika nekk na sa diggante jumbax waruku ba tayka ak sa waruku batika ak sa sa say oom kon loolu dafa dàqoonteeg ay teggin bu baax mooy nit ki sol tubay di ko wàcce ba ginnaawam di feeñ wala awraam di feeñ loolu dafa bokk ci ñàkk ay teggiin waaye dafa dàqoonteeg ay teggiin te gàdd ga nga xam ne ñoo tudd xasaan ñoom ñoo daan def lu mel noonu mu dàqoonteeg ay teggin lool sëriñ bi aayi ñu ko waaye nag mu wax ne loolu bokk na ci lu lu lu dàqoonteeg ay teggiin na te it gënut nit ki di ko def bokk na ci tamit li nit ki war di sàmmoo ci ay teggiin mu bañ di wuññi li nga xam ne moo nekk ci diggante ab jumbaxam ak ay bëti omo diggante boobu nit ki waru fee wuññi dara ndax loolu dañuy wax ne moom mooy awraay góor waaye bu doon jigéen sax dañ naan léppam da ko war di muur bam des ñaari tenq yi ak xarxanam kon bokkut ci ay teggiin nit ki toog ba yàgg rek muy jël ay yéreem di ko aj wala yu demee noonu ba loolu nga xam ne awra la ci moom di feeñ moo tax mu ne fa innahu naka lool de minal jahli bokk na ci ak réer wa xillatil muruati ak niiw bañum rus wa hiya te moom bañum rus moom uxtu diini mooy mbokkum diine xaysu fuqidat fuñ ko fi ñàkkee rek fuqidat diinu ñàkk nañu diine maaha ànd ak moom nee na lool de dafa bokk ci ak ndof dafa bokk ci ak réer dafa bokk ci niiw mbañum rus te mbañum rus nag dafa doon loo xam ne mooy mbokkum diine saa boo xamee ne ñàkk nañ ko rek nañ xam ne ñàkk nañ diine ndax diine li nga xam ne moo koy accompagner mooy bañum rus li nga xam ne moo koy accompagner mooy kersa ndax nit ki saa bu ñàkkee kersa du yéem a def dara saa bu ñàkkee bañum rus du ragal a def dara kon bañum rus moomu saa bu ko nit ki ñàkkee na xam ne ñàkk na diine wa minha bokk na ca ba tey antu sallima ngay nuyoo ala kulli ahadin ñeel képp kenn xaddimta jot jiitu nga alayhi ci moom wa anta rudda ak ngay delloo assalaama nuyoo alayhi ca moom isa sallama dem nuyoo na alayka ci yow awwalan jëkk wa antu saafixahu ak ngay saafwante ak moom wa antu makkina ak ngay dëgëral yaddaka sab loxo min yaddihi ci ab loxoom wa an la tanziaha ak nga bañ koo nocci xatta yakuna ba ba mu nekk huwa moom albaadi mooy aji tàmbali bi zalika ca loola ne na itam bokk na ci ay teggiin nit ki soo tasee moom nga jëkk koo nuyu su fekkee ne danga tase ak moom jëkk koo gis bul ko nëbbutu bul daw aw fenn waaye nang ko jëkk a nuyu bu fekkee ne nag moom daf laa jëkk a gis ba jëkk laa nuyu nee na bu boobaa ta boobaa itam lay teggiin mooy na nga ko delloo nuyu ba ca anam wa gën a rafet ndax alquran mi ngi wax ne wa iza xuyitum bi taxiyatin fa xayyu bi misliha aw axsana minha maanaam su fekkee ne dañ leen a nuyu na ngeen nuyoo nuyoo bu mel ni bañ leen nuyu wala bu ko gën a rafet wala bu ko gën a rafet bu la nit ki nuyoo ñaanal la jàmm na nga ko ñaanal jàmm ñaanal ko yërmande ñaanal ko barke loolu mooy nuyoo ba gën a rafet su fekkee ne nag mënoo loolu na nga ko ñaanal kem la nga xam ne moom la la ñaanal su fekkee ne nag da ngeen a saafuwante maanaam da ngeen a joxante ay loxo bu boobaa kenn ku ci ne na téye loxoom morom ma dëgëral loxoom saafuwante ak moom te bañ a yàkkamti bay këfante ay loxo waaye bañ a yàkkamti bay tàppante di di dem te it saa bu ngeen joxante ay loxo ngir saafuwante fexeel ba bul jëkk a rucc ci sab loxo lu dul ne moom dafa tàmbali di rucc ab loxoom nga yëg ko bu boobaa nag nga doog a rucc sab loxo waaye nag bul tàmbali mukk yow di rucc sab loxo ndax loolu bokkut ci ay teggiin waaye itam bokk na ci li nga xam ne day tax yiw wi nga waroon a am ci saafuwante boobu yiw wa man nga man nga am loo ci xañ sa bopp ndax képp koo xam ne yaa jëkk rucc sa loxo bu boobaa yiw wa ca yow lay gën a ca yow lay gën a tuute moo tax mu ne fa inna ftitaafal aydi naka këfante ay loxo de bi suratin ci lu gaaw makruhun lu ñu sib la wa minha niki noonu antu saafihu ngay saafuwante bi yandika sa loxo jamian boole seen waddoo te ngay ñaan lahu ñeel ko wali nafsika ak ñeel sa bopp bil xayri ci aw yiw fa innahu ndaka lool de mimma bokk na ci la nga xam ne yu kaffiru day kafaara azunuba ay bàkkaar ne na li nga xam ne mooy këfante ay loxo day di nuyoo di tàppante loolu dañ koo sib ne na saa boo demee bay nuyoo na ngeen nuyoo dëgëralante saafowante bu baax ku ne ñaanal sa moroom jàmm ku ne ñaanal sa moroom aw yiw ndax loolu mën nañ leen cee kaffaaral ay bàkkaar suñu borom mën na leen cee jéggal ay bàkkaar yoo xam ne da ngeen koo defoon wa minha bokk na ci teggin ya ba tey an tastazina ngay yëglu isa aratta ndeem namm nga du xuula baytin tàbbi kërug nit wala tàbbi ci néegum nit fa in azzinuuka fa in azzinu laka su fekkee ne diga jox nañ la ndigalul nga dugg daxalta bu boobaa nga tàbbi ca biir néeg ba wa illaa su fekkee ne nag joxuñu la ndigal la rajaata ne na nga dellu dana su fekkee ne danga bëgg a dugg ci néeg nit day na nga yëglu soo yëgloo buñ la joxee ndigal nga dugg buñ la joxul ndigal nga dellu fa nga xam ne fa nga jógee wala tarmi boo duggee ba pare nag bul sànni bi basarika ci sab gis fii baytin ci néeg boo xam ne laa tamlikuhu moomoo ko li allah tattalia ngir nga bañ a yuqamti ko fiihi ala awratin ci awra maanaam lu nëbb loo xam ne dañ doon bañ mu feeñ kon ne na saa boo duggee ci biir nag buñ la joxee ndigal ba nga dugg na nga fexey ba bul bul jël sa bët yi fu ne nga sànni ko fa ci biir néeg bi néeg boo moomut boo ci duggee da ngay yemale sa gis ngir nga bañ a yëqamtiku jëm ci loo xam ne dañ koo nëbb ngir bañ nit ku ko gis kon nit ki war naa sàmmonte ak teggin yooyu yëpp ngir ne yooyu yëpp lu mu ci wuute rek day wuute ak li nga xam ne mooy teggin yi nga xam ne moom nit ki war di jëfandikoo fu mu toll kon ñi ngi tuub bu baax te jégglu di wax ne lu ci dëng te suñu mata di la lu ci jub suñu boroom moo ko bëgge noonu in uridu illa al islaaha ma stata'tu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu